والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله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 وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد جنا بن سنت يا الله جولي تي دم تي الصلاه والسلام ني تي الجامع الصحيح امير المؤمنين ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري عليه رحمة ورضوان الباري في سن جوتا بي ويسو تامل وون نان تي كتاب الصوم ولا كتاب الصيام موي دي تيري بي وقت والو ñu gisoon ci baabu wala boog tàmbalek baabu wujubi sawmi ramadana wa qawlillahi taala ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun bunt bi nga xam ne mooy wax ci war bi nga xam ne moom la woor weer woor weer koor war ak wax bi buur yàlla subhaanahu wa taala wax يا أيها الذين آمنوا إن كان يحب الجد دق كتب فرتال من عليكم كير الصيام كور كما كم نحن كتب نون من فرتال ون منام كور على الذين تنيا من تنا من قبلكم نون نون جيت ولا علكم بكر فيين تتقون عن رجال الله جسر من حديث سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه ci kaw kaw bi nga xamante ne dafa laaj yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko axbirni ma farada allahu alayya min as-siyam xabaare ma li nga xamante ne moom la yàlla farataal ci man ci koor loolu muy tegtale kon ne koor dafa nekk loo xamante ne farata la ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daf kaa tontu fa qaala shahru ramadan illa an tattawwa shay'a mu ne ko xanaa weeru koor lu dul xanaa nga daal di coobare dara maanaam kon ñu ci loolu muy tegtale ne kon woor weeru koor dafa nekk loo xam ne farata la rawatina bi nga xamante ne moom la ko leeralal faratay lislaam ba mu noppee waa ji maanaam muy kaw-kaw bi dani walladi akramaka laa atatawwa'u shay'an wala anqusu mimma farada allahu alayya shay'a waat naa ci ki nga xamante ne moo teral subhaanahu wa mooy mu ne duma coobare woo dara waaye duma wàññi ci lii ma yàlla dara mu ne ko yenente bi sallallahu alayhi wa ne aflaha in sadaqa wala boog mu ne daxalal jannata in sadaqa texe na su fekkente ne wax na dëgg wala boog mu day da dem na àjjana dugg na àjjana su fekkente ne wax na dëgg léegi kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ ci jotoon a gis léegi imaam Buxaari rahimahullahu taala mu قال بالاسناد المتصل في اول الكتاب اليه حدثنا مسدد ثم مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الاسدي مي ابو الحسن البصري رحمه الله تعالى تترم ني واخنا مي عبد الملك ابن عبد العزيز مسدد نك موم لقب لا تي موم كوم نيغا خامتني نون لا كتاب الحج بيغا خامنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى تخلنا تي موم داد دا دي اندي يحيى بن معين wala wax tamit ñu Aliyu ibn al-Madini daal di daal ñoom comme ni mu waxee moom ne Musaddad daal moom comme turam la mel maanaam ne Musaddad mooy nit koo xamante ne dañu ko mëddal ma nga xamante ne li muy wax noonu la koy wax maanaam ko war a waxee fam ko war a waxee ak li lay demee te nam ko war a waxee ak ko war defe mu daal di nekk koo xamante ne moom mu ne dama kaa wóolu lool moom moo tax ma ko indee te imaam al-Bukhari taala solo ci moom lu bëree bëri nga xam te ne bokk na ci ñu ëpp li nga xam te ne solo na ci moom ba solo na ci moom 397 xadis euh, ci saxiixam bi maanaam loolu day wane dëgg-dëgg ni nga xamante ne noonu la màggale noonu la wóoloowe euh, imam euh, musaddad rahimahullahu taala mu bokk ci fukkeelu tabaqa bi ci tabaqatul muhaddisina rahmatullah alayhim mu nekk mu gën a àdduna ci li wóorul ci cent cinquantième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna deux cent vingt-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi euh, sallallahu alayhi wa sallam euh, loolu euh, mooy moom maanaam mu nekk kon koo xamante ne dafa nekk koo xamante ne ci siq siqaat yi la bokk mu nekk koo xamante ne sikk nekkul ci ne ci imaam yu mag yi la bokk rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamantene nonu la nekké nonu lañ ko leerale ci luddul ben du ñaar imam al-Bukhari comme niñ ko gisé le solo na ci mom 397 hadith imam Abu Dawud solo ci mom 561 hadith manam motax tax euh, imam Abu Dawud rahimahullahu taala ci manam da ngay gis hadith mi lu ci bëree bëri manam ci subhanallah ci 4000 hadith yo xamantene 500 yi ak lu tek ci imam Musaddad lako solo manam ngay gis kon li nga xamantene manam mën nañ ni un ah euh, loolu muy euh, maanaam muy wane dëgg-dëgg li nga xamante ne euh, noonu la imam nekk nekkee koo xamante ne ku am doole la fi moom ah, kon ñoom ñaar ñoom nag ñoom la nekk seen sëriñ waaye imam at-Tirmidhi rahimahullahu taala solo na ci moom benn xadis kese maanaam solo ci moom lu bari maanaam benn wala solo na ko benn xadis ci Muhammad ibn Ahmad ibn Madawiyah manam mom la solo wé ci mom mais sinon imam al mus imam at imam at-Tirmidhi solowul ci mom Muhammad ibn Ahmad ibn Madawiya bobu nak moy Abu Abdurrahman at-Tirmidhi imam an-Nasa'i solo na ci mom ñaari hadith yo xamantene ne yëpp maanaam daf ko solo manam ci Musaddad yo xamantene ñom ñaar ñëpp ci Ibrahim ibn Yaqub as-Sa'di lako solo wé rahmatullah alayhi manam gi gis na kon wa ashabu kutubu sittah maanaam ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom directement mooy imam al-Bukhari ak imam Abu Dawud amma imam euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci ku solo ci moom moom mooy imam at-Tirmizi imam at-Tirmizi ak imam an-Nasa'i mu am kon ñeneen ñaar ñoo xam ne solo wuñ ci moom muy imam Muslim ak imam Ibn Maaja rahimallahu jamii kon kook moom mooy imam euh, Musaddad mu ne qaala haddasanaa Ismaïl moom mooy Ismaïl ibnu Ibrahim ibnu Miqsam al-Asadi gën a siiwee ci ibnu Ulayya rahimahullahu taala di Abu Bishr al-Asadi di nekk waa Basara gën siiwee nag ci ibnu Ulayya ngir ne yaayam moo nekkoon maanaam nekkoon sëriñ ci mu mag ci euh, sëriñu waa Basara yi ci jamonoom mu gën a siiwee ngir ne yaayam moo gën a siiw baayam ci xam-xam moo tax ñu naan ñu koy dàqante leen naan ibnu Ulayya mu nekkoon sëriñ bu mag tamit nekk sëriñu ñoom moom Shaafi'i ak ñeneen rahimahullah rahimahullah mu bokk ci juróom-ñetteelu génération bi génn àdduna cent quatre-vingt mu bokk ci euh, juróom-ñetteelu euh, tabaqa bi maanaam moy huitième génération bi génn àdduna cent quatre-vingt-treizième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi génn àdduna cent dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon wa Basara la won waaye ginnaw ga dafa dem dekk ci Baghdad fofu nak moy fi nga xamantene fofu foofu la ko boroomam wa taala rahmatan wasi'a ay haditham ñi ngi ci kutubu sita an Ayyub te mom moy imam bu mag bobu Ayyub ibn kaysan as sakhtiyani manam gëna a kaysan muy bayam gëna a ci Abu Tamima manam muy Ayyub ibn Abi Tamima as sakhtiyani Abu Bakar al-Basri rahimahullahu taala nekk tamit imam bu màgg màgg màgg boo xamante ne euh, kenn du laaj ay mbiram comme ni nga xamante ne noonu euh, lañ ko gisee gisaat ko mu nekk imaamu waa Basara waaye ñëw maanaam bu ku mel ne imaamu Malik solo na ci moom ngir ne ci jamonoy aji la ko gis mu nekk imam boo xamante ne euh, bu maanaam borom xam-xam yu maanaam ñu bëree bëri bëri dañ dañuy dañuy solo ci moom maanaam mu nekk ñu bëree bëri ñoo xamante ne dañoo solo ci moom moom mu soloo ci ñeneen ñu bari mu nekk kon imam boo xamante ne ci juróomeelu tabaxa bi la bokk gane àdduna soixante-huitième année génn àdduna cent trente-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci euh, atu mbas ma maanaam mbas moo amoon mu daal di cay génnee àdduna mbas mooy épidémie maanaam moom moom moo amoon mu daal di cay génnee àdduna rahimahullahu taala ci cent trente-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa moom mooy ci imaamu Malik eh, bañoona solo ay xadisam ngir ne imaamu Malik ku mu wóoluwul du solo ci yo ci moom eh, waaye eh, bi mu bi mu bi Malik gisee mu ne bi ma ko gisee ci at bi gis naa ko ñaari at yoo xam ne nanguwuma solo ci moom waaye fi ma xamee ni kii kat ku mata mooy bi ma gisee ni moom saa yu tuddee yenente bi sallallahu alayhi wa wa sallam dafay jooy ba ma yeureum ko ma daal di xam ne ah day wi ki mom mom mat naa mat naa wóolu mat solo ay mbiram nga xam ne imam Shu'ba al Hajjaj rahimahullahu taala mom neena bo boo déggee maanaam mom moom daf daan wax naan Ayyub as-Saxtiyaani manam daf ne kana sayyidul fuqaha manam mom moy sangu borom ko mu fiqi mom comme non la ka daan wax waxe mom dana haddathani Ayyub anu mooy saxtayaani dan ni kaana sayyidul fuqaha manam mom no sangu borom xam-xam fiqi rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamantene tamit la imam al-Bukhari we ci mom bi nan kana abu kaana ayyub sayyidul muslimina ayyub ayub as mom mo ne kon sangu ñi nga xamantene ne ñoom julit jullit ñi ci jamono te noonu tamit la waxe ni ñett ñi ni musuma gis ñu melni ñoom muy ayub mu ibn abi tamimata as-saxtiyaani ak Yunus ibn Ubayd ak ah, ak ibn Awn ñoom ñett ñi musuma gis ku mel ni ñoom ah, rahmatullahi alayhim mu nekk koo xamante ne ah, naka loolu tamit daf doon wax naan moom chaque maanaam maanaam moom Ayyub as-Saxtiyaani maanaam moom Shu'ba rahimahullah maanaam ak ku xam kan mooy Shu'ba maanaam imam Shu'ba ni mu mel ak dëgg-dëgg maanaam ni mu ni ku ku ku màgg te te dëgër lool maanaam nekk koo xamante ne dafa am rigueur bu mat sëkk maanaam moom day bi nga ayub as imam ayub as-Saxtiyaani ne ko man di lii dama ciy sikki a ashukku ah, maanaam ashukku fii maanaam ci xadis bii day dama ciy sikki sàkk mu ne ko shakkuka ahabbu ilayya min yaqiini ghayrik maanaam yow sa sikki sàkk moo ma gënal maanaam lu keneen ku koo xamante moom jàpp na lii mu dégg mokkal ni wóolu na ci moom maanaam yow nga ni ma damaa sikki sàkk ci nangam man loolu yow laa gën a wóolu maanaam loolu day tegtale ni nga xamante ne noonu la euh, ayub a saxtiyaani nekk euh, ku mag comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxee bi ci euh, moom ak imaamu Malik siiw na rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gën a àdduna soixante-huitième année génn àdduna cent trente-et-unième année comme niñu ko waxee ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu ne Euh, muy euh, mawla ibn abdullah ibn umar euh, ibn al kon nafi kon moom mu nekk koo xamante ne tamit muy abu abdullah muy dàqantalam nekk waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu nekk tamit imam boo xamante ne ci madinatul munawwara jamono mu na ak maanaam moom dafa nekkoon imaamu borom xam-xam hadisi imaamu beneen Naafi' nekk imaamu jàngkatu al yi maanaam ñoom ñaar ñu même Naafi' bi maanaam moo tax eh, keneen ki nga xam ne moom jàngkatu al ñoom ñaar ñëpp nekk ay sëriñu imaamu Maalik lañ maanaam Naafi' bi nga xamante ne ci la Warsh jëlee ci moom ak Qaaluun ñu naan Warsh an Naafi' wala Qaaluun an Naafi' maanaam bu ak Naafi' bi nga xamante ne moom mooy fiw ci téere xadiis yi donte ñoom ñaar ñëpp ay sëriñ lañ ci imaamu Maalik rahimahullahu taala euh imam imam Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu mom moko gorel mu nekkon jaamam mu dal koy gorel ngir eh, gis bi mu gisee ci mom manam bax ak sell te ak ragal yalla eh, gi nga xamantene ne mo nekkon ci mom rahimahullahu rahmatan wasi'a imam al Bukhari nak don wax nan cyallali bi gën a ci cyallali moy hadith bo xamne imam malik daf ko jëlee ci nafa mu jëlee ko ci Seydina abdullah ibn Umar Eh, ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma eh, mu nekkoon koo xamante ne tamit eh, kon ci ñi gën a màgg ci la bokkoon ci jamono da nga xamante ne moom càllaleem lu mu jëlee ci Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu moom moo gën a li nga xamante ne moom la doomu Seydina Abdullah ibn yi di jëlee ci seen baay ànd ak ne ñoom ay siqaat lañ maanaam du ne parce que seen ay doom lañ maanaam waaye c'est ay siqaat lañ ay imam lañ ku mel ni Salim nga xamante ne moom ci mooy doomu Seydina Abdullah ibn Umar bi gën a màgg bi gën a siiw bokk ci fuqaha as-sab'a yi ci benn ci wax yi borom xam-xam fiq yi gën a mag biir Madina ci jamonoom ànd ak loolu jël jëlee ci baayam moo ëpp doo jëlee Seydina Abdullah ibn Umar moo ëpp doole Saalim jëlee ci Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu maanaam loolu day wone Naafi' mi nga xamante ne noonu la nekkee dëgg-dëgg euh, ku mag euh, rahimahullahu ta'ala Euh, moom ci ñetteelu tabaxa bi la bokk muy juróom ñooy ñetteelu génération bi génn àdduna cent dix-septième année ginnaaw gàddaay yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it ay xadisam nekk ci euh, kutubu sitta mu ne euh, an ibnu omar muy sayidna abdullahi ibnu omar ibnu alxataab ibnu nufayl ibnu abdul uzza ibnu riyah ibnu abdullah ibnu qurt ibnu Euh, Razah ibnu Adi ibnu Kaab maanaam kon foofu la bokk ak yonent ci Adi ci euh, Kaab Kaab moo tax waa Banu Adi la moo tax ñu naan ko al-Adawi ndax Adi doomu Kaab Kaab doomu Lu'ay Lu'ay doomu Ghalib maanaam euh, noonu la ñu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam dàqantalam nekkoon Abu Abdurrahman di waa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalus salaatu wassalaam mu bokk ci ñett maanaam saxaaba yu màgg yi radiyallahu ta'ala anhum ñu naan ko al asar yi manam ki nga xamne da fay top di jeex top jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamantene fekke na ghazwatul ahzab ak al hudaybiya ak yenen yi xamantene xamante ne ñoom ñooy xare yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te sayidna jabir ibn abdullah radiyallahu anhu dadi wax wax du seede seede gu mag ci mom muna ma minna ahadun illa malat bihi dunya wa maala biha illa ibn Umar maanaam ñun ñi ñëpp amul kenn ci ñun lul jéng na ci àdduna wala àdduna àdduna jéng ci moom ba mu des Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab ta'ala uh, anhuma uh, moom kon uh, moom mooy ki nga xamante ne maanaam di di ki nga xam ne moom mooy Seydina Abu Umar ibn al-Khattab ta'ala ba pare nekk doomam ji gën mag tamit ci doomam yi Ah, radiyallahu taala anhu bokk tamit ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu al abadilatul arbaa muy ñeenti abdullah yi nga xamante ne ay gone lañ ci jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam seen baay bi saxaaba ah, radiyallahu taala anhum ah, kon moom itam mu nekk koo xamante ne kon xare bi mu njëkk xare comme niñ ko waxee léegi mooy xare xandax ngir ne bisu Uhud daf dañoo jàppoon ne gone la yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jëlu woon moom Seydina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma moom mi ngi gane àdduna fukkeelu at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu amee juróomi at ci la tuub dugg ci lislaam ànd ak baayam maanaam ak maanaam waa këram ñu dugg ci lislaam euh, naka noonu kon mi ngi génn ci euh, ñaar juróom-ñaar fukkeelu at ak ñett muy soixante-treizième année ci ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu nekk comme ni nga xamante ne noonu lañu ko gise woon royukaayu euh, ñi nga xamante ne mooy royukaayu euh, taabi'in yi euh, rahmatullahi alayhim ko li nga xam ne moom la ku mel ni Sa'id mu Musayyib waxoon nga xam ne mooy taabi'i bi gën a màgg ci taabi'i rahimahullah mu ne amul kenn koo xamante ne maanaam génn na àdduna yóbbaale ay jëf man ma bëggoon a nekk ci palaasam que ni ni ni gisee ci Seydina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala Euh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tamit seedeel ko ne Abdullahi rajulun salih maanaam Abdullah ibn Umar nit ku baax la te wallahi baat boobu noonu baat boobu moo ëpp adduna ak li ci biiram ëpp àllaaxira ak li ci biiram maanaam baatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam seede ne kii nit ku baax la moo ëpp loolu moo ëpp adduna ak li ci biir ak àllaaxira ak li waaw ndax loolu li muy tekki tekki mooy ne nit kooku dëgg dëgg dëgg maanaam mooy dafa sell ci biir ak ci biti et que léppam yàllaa ko moom maanaam mooy koo xamante ne moom léppam daf koo jox boromam subhaanahu wa taala te mu dëggu ci te loolu nag feeñ ne ci ay doxalinam ak ay waxenam ak ay jëfinam ak mboolem mbiram yi radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom kon li mu solo ci ay xadis ginnaaw sayyidina abu hurayra radiyallahu taala moom muy ëpp li mu solo xadis mooy deux mille six cent trente xadis moom mooy musnadam cent soixante huit xadis moom la imam al buxaari ak imam muslim dëppoo solo quatre vingt et un xadis la imam al buxaari wéetoo trente et un xadis moom la imam muslim wéetoo ci xadisu seydna abdullah ibn umar ibn xattaabi radiallahu taala anhuma ay xadisam kon nekk ci kutubu sitta mu ne radiallahu anhuma annahu qaala nee na saama woor na annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ashuraa moom mooy fukkeelu at fukkeelu fan ginnaaw gàddaay yi yenente bi sallallahu alayhi ko ba pare wa amara mu digale waaw ci weeru tamxarit waaw mooy muharram maanaam mooy bisu voilà maanaam euh, euh, ëllëgu tamxarit bi maanaam guddi gi nga xamante ne mooy tamxarit ci ëllëg loolu moom mooy euh, ashura maanaam mooy fukkeelu fan ci weeru tamxarit muy muharram wa amara ba pare mu digle bi siyaam yi ci woor ko kon lolu mom moy li nga xamantene mom mo moo kon farata gu jitu waye fa lamma ba nga xamantene furu da faratal nañu ramadan ramadan turika ci lañ ko baye manam kon ñu gis ne ramadan manam farata la manam lolu mom moy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi hadith bi di leral ne li nga xamantene mom moy ramadan manam mom moy ginnaw manam ne we moy wer wi nga xamantene mom moy wer wi ñu wara wor mu ne wakana te nekkon na abdullah sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhuma laa yasuumuhu daanul ko woor maanaam daanul woor bisu tamxarit ashura daanu ko woor illaa lu dul an yu waafiqa ci mu dëppook sawmahu kooram maanaam masalan tey bu dee altine gu ne day woor wala mu daan woor ñetti maanaam maanaam altine gu nekk wala alxamis muy woor mu tombeek bis boobu bu boobaa dana ko woor waaye su dul loolu du ko woor maanaam ngir ne ngir wan nit ñi ne lii du farata et dafa nekkoon farata waaye léegi dañ maanaam farata gi mu nekkoon farata léegi dañ kaa folli nekkatul farata waaye nag dafa mujj rek nekk loo xamante ne lu ñu sopp la waaye bu dee ci ku mel ne Seydina Abdullah ibn Umar bàyyi gi mu koy loolu ci jëmmi boppam tiyaaba lu tax ngir ne bàyyi gi mu koy bàyyi day jàngal nit maanaam lii woor ko warul waaye su fekkonte ne ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñëpp ko woor bu boobaa ñeneen ñi ñëw ci ginnaaw mën nañoo def def la jàpp ne xëy na woor ko dafa nekk loo xamante ne dafa war maanaam kon loolu mooy li nga xamante ne ah moom mooy sew-sew eh, bi ci nekk wallahu alam xadis bi imam al buxaari rahimahullahu taala indi na ko xadis dina ko indi xadis numéro quatre mille cinq cent un moom daf ci wéet ci waa asxaabu kutubu sitta imam ahmad ibn hanbal indi na ko xadis numéro quatre mille quatre cent quatre-vingt-trois ak cinq mille deux cent trois kon ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta imam al buxaari rek moo ko ci indi rahimallahu al jamii قال بالاسناد المتصل في اول الكتاب لي حدثنا قتيبه بن سعيد تمام آه، آه، قتيبه بن آه، سعيد بن جميل بن طائف ابن عبد الله الثقفي تي ومم غيسون نانكو مانام غيسون نانكو حديث بن دك من قال حدثنا الليث موي ابن سعد موي امام ماغ بوب رحمه الله تعالى ابو الحارث الليث بن سعد ابن عبد الرحمن الفهمي Euh, muy waa misra maanaam nekkoon euh, maanaam euh, mu ngi bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa madina yu njëkk yi bu nekkoon ak imaamu malik rahimahullahu taala xam-xamam nekk xam-xam bu kawe kawe ba xam ne sayyidna al imam ash-shafi'i rahimahullahu taala moom du doon rëccu bi mu gisee bi mu demee madina jàngee ci imaamu malik ginnaaw ga mu dem misra fekk fa taalibi imam laysi yi maanaam fekk moom jàng jotuta jàngee ci moom waaye fekk mu génn àdduna mu jël ay téereem maanaam dafa jooy rëccu maanaam la lan moom moo taxoon rek mu maanaam perte temps boo jotuta jàngee ci imam Lays ibn Sa'd rahimahullah te dadaan wax naan al Lays afqahu min Malik walakin al hazwata li Malik maanaam imam Lays moom moo ëpp xam-xam Malik maanaam moo ëpp moo ëpp xam-xam imam Malik moo gën a dégg fiqh waaye nag yàlla cër bi moom imam Malik ko jox maanaam te loolu li ko mayoon imam Malik tamit moom mooy rigueur bi mu amoon maanaam nga gis ne comme li nga xamante ne exemple la maanaam boo xam ne ñaari xeeti maanaam taalibe yi imam Laysi ak taalibe yi imam Maalik gi dañoo daje maanaam dañoo daje ñuy laajte ñoom ñii kan moo mën a seen yi kan moo ci gën a tàng ci ñoom ñaar ñu ne ñii ñun suñu sëriñ du wax dara moom lu gaay def noonu la lu kii moom dafa lewet dafa jàmbaar dafa kii dafa yaaram la dafa voilà ñoom ñeneen ni yii ñun nag suñu sëriñ moom moom moom dafa tàng dafa kii mais bi nga xamante ne ñu ne léegi nañu xool moo tax bi ñu demee ci euh, euh, timis bi ñu julee timis ba noppi ñu dem ci ginnaaw euh, kër fi imam Malik doon jàngale même ci jumaa ci place bi ci ginnaaw noonu rek ñu commencé wax imam Malik dàq la ñoom ñëpp ñu kenn ñëwuti waaye bi nga xamante ne moom la lañ dem ci taali kii daara yi imam Lays rahimahullah moom mu bàyyi leen maanaam mu bàyyi coow li waxul dara moo tax boroom xam-xam moo tax euh, moom xam-xamam loolu moom moo indi maanaam le fait tegul woon choc maanaam rigueur ci kaw taalibe mi maanaam di du leen yenn choc yi loolu moom moo tax taalibe yi jàmbaare wuñu jàmbaare gi taalibe imam Malik yi jàmbaare ba tax ñu toxal xam-xamam ba tey maanaam loolu moom moo indi vide boobu moo indi problème bi nga xamante ne moom moo mujj am ci ginnaaw bi maanaam euh, waaye Euh, imaam la boo xamante ne dëgg-dëgg borom xam bu màgg màgg la te nit la koo xamante ne tamit euh, ku sell la woon ci maanaam dafa nekkoon tamit koo xamante ne borom subhaanahu wa ta'aala dakaa wuri sigaloon alal ju bëri waaye bu génne asaka lu tax ngir ne saa yu alal ji ñëwee maanaam da daan def commerce bu ba bu alal ju bëree bëri waaye saa yu alal ji ñëwee daka daan daka daan saraxe maanaam ba nga xamante ne ak di ko dugal ci maanaam yi nga xamante ne moom mooy njariñal nit ñi ba nga Euh, mu mënut a génne asaka maanaam mu mu daanaka lañ naan milliardaire bu mënut a génne asaka la woon voilà maanaam euh, rahimahullahu taala euh, rahmatan waasaa moom mi ngi adduna ci maanaam mi ngi gane adduna moom a imam Malik ñoo bokk at bi ñu gane adduna muy quatre-vingt-quatorzième année gënnaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze Mum euh waye min génn adna 175e ane ginnaw ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon mom jitu na malik euh ñent at maanaam jitu na ko àllaxira ñeenti at. cent soixante-dix-neuf cent soixante-quinze kii cent soixante-dix-neuf moom moo jiitu. non kii yow kii yow yëguloo ñun ci lay si lañ ne. donc dama bi taxoon dama ko tëb. <laughs> moom Lays mhm. ibn Sa'd mhm. al-Fahmi Abul Haaris al-Misri mhm. ci lañ nekk rahimahullahu ta'ala euh, an Yazid euh, euh, wala yëg non dañ cee yëggagul xëy na yëggaguñ ci yow ki ngay wax. non non côté Béthiou Moussa dama jàppoon da ko tëb jàll ci moom Lays sans. ah déedéet non Qutayba dañoo waxoon ne képp koo xamante ne hmm. gis nañ ko benn yoon dootuñu la dañ naan rek diw mooy diw mu jeex ñu jàll Qutayba ibn Sa'id gis nañ ko ci suñu jotaay bi wees ci xadis bu njëkk bi loolu moom moo tax ñu hmm. euh, topp ko waxuñu ay waxam euh, voilà wallahu a'lam dégg kon euh, imam al ibn Sa'd kon ay xadisam tamit ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Yazid ibn Abi Habib te moom mooy Yazid ibn Suwayd الأسدي أبو رجاء المصري ومصر رحمه الله تعالى آه، آه، مولاهم ومالتي أسدي لمولاهم آه، روا بنو أسد رحمه الله تعالى من جنة أدن من سنكان ترازم أنا جناو قد ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم نيغا خامتاني نيوم نيي بوروم خام خامو جارح والتعديلي نيوم دانيو كو بولي سي فقادي كوم امام ابو زرعه الرازي rahimahu llahu taala moom daf ne misriyun siqa maanaam misr la nekkoon ba pare daal di nekk tamit koo xamante ne ku wóor la rahimahu llahu taala comme ni nga xamante ne tamit moom ci taabii yi la bokk comme al ajali yi ni mu ko xam ne noonu la ko waxee rahimahu llah mu ne taabiiyun siqa mooy misriyun imam az-zahabi ne aalim aalimu ahlu misra maanaam mooy boroom xam-xamu waa misra yi ci jamonoom rahimahullah siqatun min al ulama al fuqama al atqiya maanaam dafa nekk wóor bokk ci borom xam-xam yi nga xamante ne dañoo xereñ ba nekk ba pare bokk ci ñi nga xamante ne dañ dëgg dëgg dañoo ragal yàlla imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ne siqatul faqih borom xam-xam la boo xamante ne faqih la waaye nag wa kaana yursil da daan def irsal maanaam mooy da wax ne yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama nee na waaye nag ñu xam ne jamono jooju loolu nekkutoon loo xamante ne problème la woon ci ñoom maanaam ci ginnaaw gi lay nekkee problème waaye ñoom taabii yi rahmatullah ñoom nekkul woon problème ci ñoom d'ailleurs loolu moom moo tax xadis mursal boroom xam-xam yu njëkk wuute ci ndax dañ koy nangu wala duñ ko nangu hmm. boroom xam-xam yu mujj yi ñoo mujj a dogu ci ne duñ ko nangu waaye ñu njëkk ñe ñoom ah, te al aimatu salaasa muy al imam abu xanifa imaamu malik ak imam ahmad ibn hanbal ñoom ñett ñi ñëpp rahmatullahi alayhim doon nangu xadis yoo xam ne mursal la hmm. maanaam ngir ne dañ doon wax naan man asnada lak man asnada laka faqad axaala lak hmm. képp koo xamante ne daf la daan euh, da laan indil càllale moom daf laa bàyyeeg sa jugement bopp hmm. waaye képp koo xamante ne dafa ñëw rek ne yenent bi nee na sallallahu alayhi wa wala ñëw daal di nettali kenn rek c'est parce que moom ci boppam atteel na boppam ne càllale gi man seetlu naa ko ba noppi ba mu wóor na ma ni leer na moo tax ma di ko wax maanaam ñoom mentalité boobu lañ amee woon jamono jooju loolu mom motax nu bëré bëree bëri léeg-léeg ñu jël ben hadith mursal mais li mënu ñu koy sukkandiko alors que leg leg dañ ci mëna sukkandiko waye nak ci ay conditions comme ni nga xamné nono la nekkee ci borom xam-xam yi noonu lañ ko yaatala di ko leeral rahmatullah alayhim kon mom mi ngi gëna aduna 53e année ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn aduna 128e année ginnaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci misra mom mi ngi bok ci juromelu tabaqa bi ay haditham ñi ngi ci kutubu sita mun ne anna Iraaq ibn Malik muy xaddasa muy Iraaq ibn Malik al-Ghifari al-Kinaani nekk tamit wa Madinatul Munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom mi ngi bok tamit ci ñettelu tabaqa bi mom ci la bok rahimahu allah taala nek ci tabi'i al imam Abu Zur'a imam Abu Hatim ñoom ñëpp ñu ne siqa nekk waa imam al-Ajli daal ne min xiyaar taabi'ina ci ñu gën ci taabi'i yi la bokk rahimahullahu taala sayyidina Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu ne maa aalamu ahadan akthara salaatan minhu xamuma kenn ku ko ëpp julli ni mu daan julli di ko naafila xawma kenn ku ko ëppale ay rak ibn Malik bi rahimahullahu taala ba pare daan ne kaana yasuumu dahra maanaam manam te abul abul xasn moko ko wax rahimahullah muné da nan wor tout temps manam mom foko fekk da nan wor da bokkoon ci ay jikum moom kon li nga xamante ne la al imam az-Zahabi wax nak ci al mizan muné ne siqatun ma'ruf manam ku ku ku wor la ku ñu xam la ba bari daane imam ahmad qala ahmad lam yasma' min aisha wa inma huwa an urwata anha maanaam moom mësta déggee ci Aïcha waaye dafa déggee ci kan ci Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam moom mu déggee ci Aïcha loolu mooy waxu imam Ahmad ibnu Hanbal loolu nag dinañ ko vérifier léegi insha allahu taala euh, ci euh, moom kon li nga xam ne muy al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ne siqatun taab euh, siqatun fadil maanaam ku wóor la boroomi ngëneel la moom mi ngi génn àdduna kon ci centième année yi ginnaaw maanaam juste après centième année ginnaaw gàddaay alayhi wa ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu anna urwata muy dëgëral lan hmm. li imam ahmad wax anna urwata muy ibnu zubayr ibnu al awaam moom axbara moo ko xabaare mooy sayyidna urwata ibnu zubayr ibnu awaam ibnu xuwaylid mooy waa banu asad maanaam ibnu xuwaylid ibnu asad maanaam al euh, euh, al asadi abu abdullah al madani yaayam nekk soxna asma bint abubakar radiyallahu anha euh, muy abu abdullah de waa madinatu munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam gane adduna ci vingt-troisième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci jeexitalu xilaafa sayyidina omar radiyallahu anhu laataa sayyidina osman di jël xilaafa gi ci vingt-quatrième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi moom ci jeexitalu si xilaafu Seydina Omar ci la gane àdduna muy vingt-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom euh, waaye magam muy Abdullah ibnu moom saxaaba la radiyallahu anhu comme ni nga xamante ne noonu euh, mu génn àdduna ci quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent mag yi boroom jaloore yu kawe yi radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee moom mooy nga xamante ne moom la médecin bi daggoon tànk bi fekk ko muy julli te amul incident maanaam bi mu paree julli ci la xam ne dagg nañ tànk bi maanaam loolu radiyallahu anhu mu nekk tamit ku woon kon koo xamante ne dëgg-dëgg dafa nekk ku màgg moo imam moo tax imam ibn Hibbaan daal ne kaana min afaadili ahlil madinati wa ulamaa'ihim dafa bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën ci wa medina bok ci sen borom xam-xam yi rahmalahu taala mom tamit mu nekkon ko xamantene borom xam-xam fekk la bëri won lool lo xamantene solo na ko ay rawati na ci tantam muy soxna Aisha ummul mu'minin radiyallahu taala anha mu xaafis ibn Hajar rahimahullah mu ne siqatun faqihun mashhur wóor boroom xam-xam la ba pare ku siiw ci loolu d'ailleurs mom mu bokku na ci fuqaha as-sab'a jurum mooy juróom borom xam-xam hmm. yi nga xam ne waa mu nawara la ala saakini afdalu salatu wassalam mom euh, ci ñooñu la bokku mom mi ngi génn àdduna ci 94e ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam ca Makka la genné aduna nak euh, donte wa madina la euh, rahmuhullahu taala rahmatul wasi'a axbaroo moko han ko mu Aisha hmm. taala anha عائشه بنت ابو بكر ابن موي موي ابو بكر الصديق موي عبد الله ابن عثمان مانام ابو قحافه موم مو عثمان عبد الله ابن عثمان ابن عامر ابن عمرو ابن كعب ابن سعد ابن تيم موتاخ وا بنو تيم مانام موي تيم ابن مرتا موي فوف لا بوك يننت بي صلى الله عليه وسلم موي مرتا ابن كعب ابن لوي ابن خالد مانام موم فوف لا بوك يننت بي صلى الله عليه واله وسلم mom soxna Aisha ummul mu'minin dañ koy wax ummu Abdullah yaayam mom moy ummu ruman bint Umayr radiyallahu anha mom sahaba la bayam di sahaba yaayam di sahaba mamam di sahaba ñum euh jarba yi ñi sahaba mom leppum sahaba la radiyallahu anha mom manam mi nga xamantene manam mom ñu bokku ñup ay sahaba la voilà waaw mu radiyallahu anhu bam voilà maanaam ni nga xam ne noonu lañ ko gisee nañ ko ummul mu'minina ñu ko waa wax al Humayra radiyallahu ta'ala anha ñu koy dàkkantele habibatul Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ak habibat rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da doon wax ne mooy ki mu gën so sopp d'ailleurs nee na soxna Fatima radiyallahu anha ne ko soxna Fatima ndax bëgg nga ma mu ne ko waaw mu ne ko kon de da nga bëgg kii maanaam mooy soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam te moom kon mu nekk ki nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam comme ni mu nekkee ci xadis abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam dama ko dama ko laaj kan nga gën a ñi mu ma Aïcha ma ko non góor ñi laa la wax maanaam moom bu foogoon ne boppam ko ah, papam maanaam abubakar maanaam subhaanallah kan nga gën a ñi mu ne Aïcha ko kan non góor ñi mu xana xanaa papaam Abu Bakar ah radiyallahu anhu radiyallahu ajma'in manam kon mu nek manam kon mom eh, soxna Aisha radiyallahu ta'ala anha nek borom gëneel yu reere comme ni nga xamne non lañ ko xamé eh, am amna xew-xew bo xamantene tamit nattoom la woon xaarisatul ifki ba tax borom bi subhaanahu wa ta'ala wàcce fukki ay ak ben ci sóoratu nur manam mm-hmm. ngir leral ay mbiru soxna Aisha radiyallahu anha setal ko maanaam loolu yëpp mu nekk jaloore mu nekk jaloore bu mag a mag ba yowmal xiyaamati nit ñi di ko jàng mu nekk boo loo xamante ne te loolu day wane dëgg dëgg ni soxna Aysa fi borom bi subhaanahu ndax alquran kaddu borom bi la bu jiitu bu fekkente ne sabab bi maanaam li tax kaddu googu maanaam kaddu googu borom bi subhaanahu wa wax ko te mu jiitu maanaam mooy amul fu mu tàmbalee hmm. mooy ngëneelu soxna Aysa radiyallahu anha ngir setal ko maanaam loolu day wane ni nga xam ne noon la soxna Aysa màggee ci yàlla maanaam soxna Aysa ummul mu'minin kon euh, moom euh, mu nekk ki nga xamante ne moom maanaam sa sa sa euh, cinquante huitième année kon la génn àdduna ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wasallam te bokk na ci ngëneelam yi mooy ne néegam foofu la yenente bi sallallahu alayhi wasallam génnee àdduna waaye foofu lañ ko rob yenente bi sallallahu alayhi maanaam néegam moom dafa bokk ci toolu àjjana yi comme ni nga xam ne mm-hmm. noonu lañ ko gisee ndax foofu la yenente bi sallallahu alayhi tëdd ba pare moom la foofu la ñaari yi tëdd mooy mm-hmm. Seydina Abubakar ak Seydina Omar radiyallahu taala tamit di ñaari xalifa yenente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne ñooy alwaziraani maanaam ñaari eh, eh, jëwriñu yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam ñoom foofu la ñu nekk tamit tëdd fa ah radiyallahu taala kon loolu day wane tamit li nga xamante ne noonu la nekkee boroomi ngëneel te moom daana la wax naan yeneen bi sallallahu alayhi dafa génn àdduna fekk sama tuflit ak tuflitam jaxasoo ma te génnewul àdduna loolu sama diggante ak sama dënn maanaam loolu yëpp day wane ni nga xamante ne noonu la maanaam te borom bi subhaanahu wa ta'ala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam borom daf ko wax ne ko wala axiratu xayrun moo gën ci yow ko lu njëkk la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam subaam gannaaw subaam moo ko gën li mu mujjee def ci àdduna nag li mu mujjee nekk àdduna mooy ci eh, kër soxna Aysa radiyallahu anha ci loxol soxna Aysa radiyallahu anha kon loolu day wane ngëneel bi nga xamante ne moom la soxna si am radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha eh, nekk tamit ki nga xamante ne ci lu ñu joyal comme al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah ci Taqrib Tahdhib mu ne ummul mu'minin mooy ndey way gëm ni te loolu dàkkantal la ci soxna yeen di sax mu ne afqahun nisaa mutlaqan ki nga xam ne moo xam ci jigéen ñi ci lu ñu joyal mooy soxna Aisha radiyallahu anha wa afdalu azwaaji nabi sallallahu wa sallam illa Khadija fa fiha xilaafun shahid mooy ki gën ci soxna yeneen bi sallallahu alayhi wa ndax lan loolu nag am na wuute gi nga xamante ne moom mooy wuute gu siiw gi am seen diggante euh, dégg nga kon te loolu saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan wax naan ah, euh, waa dañ ko daan wax mais ñun amul benn xam-xam bu ñuy wul lu dul buñ demee ci soxna Aysa mu jàngal ko radiyallahu anha maanaam kon loolu day wane ngëneel gi nga xamante ne moom la amee génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom rek mooy jigéen ji bokk ci ah, ah, al muksiruna ñu gën a bari lu ñu soloo radiyallahu anha moom mi ngi soloo kon deux mille deux cent dix xadis mooy musnadam cent soixante-quatorze xadis mooy muttafaqun ko solo imam al-Bukhari wéetoo ci cinquante quatre xadis imam Muslim wéetoo ci soixante neuf xadis bu xadis soxna Aisha radiyallahu anha anna Qurayshan nekk waa Quraysh lu soxna Aisha radiyallahu anha nee na waa Quraysh kaanat nekkoon nañ tasuumu daan woor yawma Ashura bisub Ashura fil jaahiliyya ci jamonoy jaahiliyya maanaam kon foofu la ñoom dañ ko daan woor summa topp amara mu digal rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam bi siyaama yi ci ñu koy daal di digle koor bisub Ashura xatta mbete furida ñuy faratal ramadan weeru koor maanaam ba laataa ñuy faratal weeru koor uh, bisub ashura dañ ko daan woor te lii tamit dafa am beneen mbir bu muy tekkale xadis bi beneen dalil bu muy jàngale maanaam mooy day wane ne li yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne danañu woor ashura ndax nahnu ahaqqu bi Musa minkum ñun ñoo gën a yey ci yent yàlla Musa ki ci maanaam bi mu ñëwee Madina fekk ñuy woor ashura maanaam bisub tamxarit mu ne leen mu laaj leen lu tax ñu ne ko ndax ci lay yent yàlla Musa alayhi salaam amee ndam ci kaw na mu ne ñun nag kon de ñu gën a yelloo ci yent yàlla Musa ci yéen alayhi salaatu wassalaam kon dañ koy woor maanaam loolu zahir la maanaam maanaam loolu noonu dafay maanaam day tax ñu foog ne euh, ñoom yahuud yi ñoo jàngal yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mbir mi demewut noonu xadis bi tegtal la maanaam mbir mi demewut noonu yeneen bi sallallahu daan na ko woor te ñoom daan nañ ko woor waaye dañ kaa bàyyi woon maanaam dañ ko bàyyi woon a woor waaye nag yahudi yi biñ koy bi leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxee maanaam ci lañ ci la ko yahu ci la yenente bi sallallahu alayhi wasallam gën a feddali ngëneel gi nekk ci ñuy woor asura hmm. waaye asura jullit ñi dañ ko daan woor waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa feddali ngëneel googu bi yahudi yi waxee loolu maanaam dafa gën a leeralaat jullit ñi ne leen gis ngeen asura maanaam maanaam maanaa bi léeg gis ngeen asura bi ngeen doon woor té mu nek lo xamné du farata gis ngeen yahoud yi niñ koy woore ngir ngeenelu yent yalla Musa sallam ñun nak ñu gëna yello ci yent yalla Musa sallam ci ñoom kon ñun tamit nañ gëna japp bis bi manam wax ji manam bi lool la manam kon euh, loolu mu nek lo xamante lu mata baye xel la ci mbir mom mu na wa qala rasulullah ndawul yalla li qala wa rasulullah ndawul yalla li sallallahu alayhi wasallam ne man shaa kep ku mu sopp fal yasumhu na woor na ko woor mooy ashura wa man sha'a ku mu soobit aftara na waaye bi mu kon bi mu ñëwee ci yahuudi mais lii li ko waral moom mooy lan mooy dañoo farataaloon lan ramadan weeru koor bi bi mu waxee ñoom ba yahuudi wax ko loolu mu gën a feddali ngëneel gi nekk ci lan ci ashura waaye kon loolu la maanaa boobu di tekki waaye kon li tax imam al-Bukhari rahimahullah indi ko fi mooy bi mu ne xatta furida ramadan maanaam mbete ñu farataal ramadan mooy ne kon weeru koor ramadan dafa nekk loo xam te ne dañ ko war a woor xadis bi imam al-Bukhari rahimahullah taala indi woon na ko xadis numéro 1592 dina ko indi woon xadis numéro 2001 ak 2002 3831 4502 ak 4504 imam Muslim indi na ko xadis numéro 1125 imam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 2442 imam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 753 imaamu Malik indi na ko xadis numéro 822 imam Ahmad indi na ko xadis numéro 24011 24230 25294 26068 ak 26107 ñu gis ne xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañu ko ba mu des imam an-Nasa'i ak imam Ibn Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu fadli sawmi baabu bunte ngi nii boo xamante ne day leeral fadlu sawmi ngëneelu gi nga xam ne moom moo nekk ci koor maanaam kon woor dafa am tamit ay ngëneel yoo xamante ne nekk na ci ci suñu jotaay bi weesul bi ñuy tàmbali di ubbi li nga xamante ne moom mooy kitaabu sawmi leeraloon nañ ay ngëneel yoo xamante ne nekk na ci koor imaam al buxaari rahimahullahu taala dina fi indi tamit yeneen eh, xadis boo xamante ne eh, day leeral li nga xamante ne moom mooy ngëneelu koor eh, te naka noonu itam dina am tamit yeneeni ci yeneen bunt yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu maanaam mooy bunt bi dafay ubbi beneen série wu bunt yoo xamante ne yëpp imam al-Bukhârî rahimahullahu taala daf ci leeral ay ngëneeli koor fii nag daf koo tuddee fadlu sawmi ngëneelu koor maanaam mu nekk loo xamante ne àmma la moom mooy euh, dafa matale ngëneel rek maanaam de manière générale léegi nag muy wëlbatiku di indi yeneeni bunt yoo xamante ne dañuy leeral ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk Euh, koor moom ci jëmmi boppam lu demee nekk maanaam sawmu kafaara maanaam ne koor day far ay bàkkaar euh, ak rayaan maanaam mooy buntu àjjana bi nga xam ne moom la tuddee rayaan mu ne lissaa mi na ñeel koor mu tuddee ko buntu boobu noonu euh, kon yooyu day wane ngëneel bi nga xamante ne moom moo nekk ci koor xattaa buntu bi ci tegu sax dina ci wax ay xadis yoo xamante ne dañuy leeral ngëneel bi nga xamante ne moom nekk ci di woor weeru koor waaye tamit di woor rek ci lu nu doyal mm-hmm. mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi wal kitaab li haddasanaa Abdullah ibn Maslamat te moom mooy ibn Qa'nab al-Qa'nabi al-Haarisi rahimahullahu taala daqatam ne ko Abu Abdurrahman al-Madani di waa Basra rahimahullahu taala maanaam moom moom la xadisam moom la imaamu euh, Abu Dawuda mm-hmm. imam Abu Dawuda moom la njëkk indi xadisam ci Euh, sunanam maanaam moom mu lay njëkk indi xadisam mooy Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab qanabi euh, moom mooy euh, imam an moom Qutayba ibn Sa'id gis ni nga xamante ne loolu la maanaam Abdullah ibn Maslama nekkoon taalibe bu mag a mag ci taalibe imam Malik bi qissaam bi nettali woon nañ ko ci moom ak ash-Sha'bi imam Shu'ba bokk Hajjaj Euh, rahimahullahu taala bi mu taseeg moom euh, fekk mu doon euh, naan sàngara maanaam ba imam ba ne ko maam jàngal ko xadis boobu iza lam tastahi ah, ah, faf'al ma shi'ta maanaam boo amul kersa ne min kalaami nubuwatil ula iza lam tastahi faf'al ma shi'ta yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci kaddu yi yonent yu njëkk yi maanaam mu yegg si ba tey ci ñun mooy soo amul kersa defal lu neex maanaam wax jooju dugg ko mu daal di euh, ñëw maanaam ne ko damaa bëgg jàng maanaam lii ngay wax ni muy xadis dama ko bëgg a jàng mu ne ko demal Madina ga jàngee ko ci imaamu Malik mu daal di dem Madina jàngee ci imaamu Malik waaye ba mu fa jógee xadis boobu benn xadis la dégg ci Shu'ba ndax bi mu dellusee fekk na imam Shu'ba génn àdduna bi imam Malik génnee àdduna 179 année fekk na imam Shu'ba génn àdduna moom 161 année maanaam kon loolu moom moo tax maanaam gisaatu ko ci ginnaaw bi rahimahullahu taala waaye moom bu daan ñëw Madina maanaam bu daan dem di dellu si waat moom Madina moom imaam euh, euh, moom Abdullah ibn Maslama euh, imaamu Maalik da daan wax naan nañ jóg gën ci nit ñi maanaam kii moo gën ci nit ñi maanaam te loolu seede la boo xam ne ku xam imaam Maalik maanaam ak seede yu mel bu mel noonu ni mu rëyee mu mën a seede ne kii moo gën ci nit ñi loolu day wane ni nga xamante ne noonu la noonu la kawe moo tax ah, Muwatta am moom Abdullah ibn moo gën a dëgër ci Muwatta yëpp moom ak Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi maanaam mais moom te imam al-Bukhari rahimahullah suy soloo xadis ci Muwatta daf koy jëlee tamit ci moom maanaam dafa bokk ci ñu mu tànn ñi nga xamante ne saa yu soloo Muwatta day tànn maanaam imam yooyu noonu mu jàngee mu mu ñi ni mu solowee ci ñoom Muwatta bu imam Malik mu tànn jàngee ci ñoom dàkkantal nekk Abu Abdurrahman al-Harisi Euh, génn àdduna de cent vingtième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ñii nee nañ ci Makka la ñii nee nañ ci euh, Basra la euh, rahimahullahu taala moom imam Abdullah ibn Maslamat al-Qanabi imam al-Bukhari rahimahullahu taala solo na ci moom téeméeri xadis ak fanweer ak juróom-ñett mooy cent trente-huit xadis imaamu Muslim solo na ci moom soixante-seize xadis imam Abu Dawuda solo ci moom cent cinquante-quatre xadis imaam maanaam te moom mooy xadis bi mu njëkk maanaam bi mu njëkk indi moom la solo ci moom euh, imaam at moom dafa solo ci ku solo ci moom juróomi xadis imaam an-Nasa'i solo euh, solo ci ku solo ci moom ñaari xadis maanaam kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ ay xadis moom des ak imaam Ibn Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii euh, kon moom mu ne an Malik ni imaamu daaru hijra imaamu Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Amr ibn Ghayman ibn Fusayl ibn Amr ibn al moom mooy al as zu asbax maanaam moo tax ñu naan al asbaxi ñoo alximyar yi maanaam ngir ne waa ximyar la ca waa seen cosaan waa yaman lañ rahimahullahu taala maanaam imaamu Malik di imam boo xamante ne Madina fa la defee lépp fa adduna fa la jànge fa defee lépp jaar-jaaram lépp madinatu munawwara la ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam te ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xamu madina yu mag yëpp jàngee na ci ñoom naka noonu tamit boroom xam yu mag yëpp jàngee nañ ci moom moom tamit ñeneen ñi nga xamante ne ñoo daan nekk ci gox yi adduna bi yëpp daal nañ ñëw di ñëw ci moom euh, di euh, jël xam-xamam ndax moom mooy imaamu daarul hijra radiyallahu taala anhu moom mooy imaam bi nga xamante ne tamit benn ci fuqaha maanaam benn ci mazahibul fuqaha yi maanaam benn bi ngiiram la moom ñi nga xam ne ñoo fi des ba tey ci ñeent yi maanaam benn bi ngiiram la mu nekkoon imam ci domaine yëpp moom imaamu Maalik euh, euh, ci fiqh ci xadis ci ak ci ci yeneen xeetu domaine yëpp imaamu Maalik rahimahullahu nekk koo xamante ne euh, ku ci ràññeeku la xatta maanaam ci nasab daal lañ xool ne maanaam du ci imam maanaam ci wàllu askan maanaam du xool askan yi a yooyu loolu moom du ci imam mais yeneen yeneen yi ci des yëpp maanaam moom imam la ci maanaam du ci imam nag te tëlawul ne xamu ci dara voilà maanaam def cee am niveau ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu moyen mais moom nekk en tant que imam koo xam ne day luwaay lay ku ràññeeku lay doon maanaam moom Malik rahimahullah imam la ci lépp ba imam Ash-Shafi'i doon wax naan iza zukira a ilmu fa malikun najmu bu ñu waxee xam-xam imam Malik moom mooy biddiw ba maanaam naka noonu tamit yeen beneen waxin iza zukira al xadis fa malik an najm maanaam bu ñuy wax xadis imaamu malik moom mooy biddiw ba rahimahullahu taala moom bu bokk ci juróom-ñaareelu génération bi téeram bi gën a siiw di Muwatta maanaam xadis yi nga xam ne moom la imaam al-Bukhari rahimahullah bi solo wee ci lu ci ëpp maanaam ci Muwatta la ne maanaam moo tax muy tànn ay imaam ñoo xamante ne maanaam dañoo jéggi dayoo ci kóolute wala boog ci ni nga xamante ne noonu lañ seggee ni ñu solowee xadis imam Malik yi ci Muwatta muy solowee ci ñoom xadis yi moom euh, noonu la imaamu al Buxaari rahimahullahu taala di def moom liñ gane àdduna kon 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, Rabi'at ar-Ra'y ak euh, Abdurrahman ibn Hurmuz ñoom ñaar ñi rahmatullahi alayhima ñoom ñooy imam sëriñam yi gën a màgg ci buntu moo tax bu naan qaala ahlul ilmi bi baladina boroom xam-xam yi ci suñu dëkk bi bu ko waxee euh, ci mot wotta mu ne qaala ahlul ilmi bi baladina boroom xam-xam yi ci suñu dëkk bi nee nañ ñaar ñooñu la maanaam mooy euh, Abdurrahman ibn Hurmuz ak Rabi'at ibn Abi Abdurrahman ñoom ñaar ñoo la ci dugg waaye maanaam ñoom ñaar ñeent ñi nga xam ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo gën a tamit euh, ràññeeku maanaam ci moom ci sëriñam yi ci buntu xadis mooy Naafi' bi ñu doon wax léegi mawla Ibn Umar ak euh, Ibn Shihab az maanaam ñoom ñaar ñoom ñoo gën a ràññee ci moom ci buntu boobu waaye imam Malik rahimahullah maanaam nekk koo xamante ne tamit dafa dëgëroon comme ni ñu ko gisee euh, ba nga xamante ne dafa nekkoon koo xamante ne tamit dafa amoon ay rigueur yu mat sëkk ci maanaam ci domaine xam-xam bi ba pare am teggin yu kawe kawe yoo xamante ne dafa jéggi dafa jombal borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi lu demee nekk toog bi mu doon toog di jàngale xadis yeneen bi sallallahu alayhi wa ba jiit fett ko juróom-ñeent fukki fett waaye yëngatuwul ngir na yaram bi moom moo tàngoon maanaam moom moo doon dem maanaam ñuy doog a xam ne euh, ñu koy laaj lan la mu ne jiit ko lu tax yëngatuwoo ah, yeneen bi laa doon wax sallallahu alayhi wa sallam mooy dayo respect bi nga xamante ne moom la amoon ci waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa ba nga xamante ne Madina nangu fa woon sol nangu fa woon war ngir ne suuf si yeneen bi sallallahu alayhi doon dëgg tànkam ñi mu fa def loolu te euh, tarki al qaadi Iyaad rahimahullah mi ngi nekk ci tartibul madaarik rahimahullah taala ne imaamu Maalik de mës na ñëw maanaam jënd na mës na jaay téegu néegam maanaam te ku xam foofu ni mu daan ni tàngee maanaam mu jaay téegu néeg mooy mooy plafond bi dem jaay di ko pour mën a am ay téere pour yokk ko xam maanaam loolu tey day wane ni nga xamante ne loolu la parce que dafa jaay jaay jaay jaay jaay jaay di jënd téere jënd téere ba xamul lu mën a jaay mu mujj jël téye bu néeg bi loolu yëpp day wane ni nga xam ne noonu la nekk woon ku màgg ci euh, naka tamit noonu la farlu woon lool ci xam-xam bi nga xamante ne moom la nekke woon waaye tam rigueur bi mu ci amoon ba nga xamante ne wax na ne fii ci jumaa ji am na ñeent fukki nit ñoo xam ne suñu taxawee ne yàlla na taw léegi mu taw. waaye du jël ci ñoom benn xam-xam parce que xam naa ne xam-xam du seen biir maanaam amuñu rigueur bii tax ñuy ja ñuy ñuy ñuy joxe xam-xam amuñu rigueur wu jàngalekat ak sàkkatu xam amuñu rigueur boobu seetla nañ nit ñu baax lañ mais te ba nga xamante ne bu ñëwul léegi na taw mu taw waaye ma leen ci domaine xam-xam la maanaam loolu moom mooy mën a segg mën a tànn mm-hmm. voilà mm-hmm. maanaam du rek kii ku baax la ku seetlu la rek kenn ci domaine xam-xam ne daa kon de lu kii moom lu mu wax dëgg la déedéet waaw moom imam moom xaw amoon na tel kii googu rigueur boobu ak xàmmee googu rahimahullahu taala min gën a àdduna 93 jàpp 94e année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 179e année ginnaaw gàddaa yonent bi sallallahu alayhi bokk ci juróom-ñaareelu euh, tabaqa bi ay xadisam nekk ci euh, kutubu sitta maanaam ba nga xamante moom tamit comme xam ne noonu lañ ko gisee woon Sufyaan ibn Uyayna rahimahullah dafa ne xadis bi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan léegi nit ñi di war di jël seen gëléem yi di war di dem fu ne di wuti ji xam-xam te lu ñu gis kenn ku ñu gën a mën a dem ci moom kër ki nga xam ne mooy imaamu Madina bi mu ne moom imaam ibn Uyayna rahimahullah mu ne imaam Maalik bi Yonent bi doon wax sallallahu alayhi wa moom kon euh, an Abi muy abdullah ibn zakwan al qurashi abu abdurrahman al madani manam gëna a siiwee ci abu zinaad mom dàqantalam tamit nek abu abdurrahman rahimahullahu taala bok ci juromelu génération bi gane àdduna soixante-quatrième année génn àdduna cent trentième année ginnaaw gaddaa yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa salam ba nga xamantene mom tamit càllalem bi ni mooy abu zinaad an al a'raj an abi hurayra radiyallahu anhu bok na ci càllale yi gën dëgër ci càllale yi ba nga xam ne sax wax nañ bool wax nañ sax ne mooy càllale yi gën a dëgër euh, te loolu day wane maanaam abu zinaat mi nga xamante ne noonu la nekkoon ku dëgër amul kenn koo xamante ne euh, wax na ci maanaam ci moom lu dul ne ku wóor la siqatun faqihun saahibu sunna voilà comme ni nga xamante ne euh, noonu la abu xaatim wax rahimahullah abu xaatim biñ ñu ko laajee abu zinaat daf ne siqatun faqihun hmm. saahibu sunna wa huwa man taqumu bihi al-hujjatu idha rawa anhu thiqat voilà maanaam moom kon imam la voilà imam maanaam ku wóor la boroom fiq la boroom sunna la maanaam ku taqoo ak sunna la ba pare dafa nekk ci ñi nga xamante ne dañuy taxawee ci moom maanaam mën a jël seen wax def lay bu fekkente ne ña jëlee ca moom ñu wóor la hmm. maanaam pas de dégg naa seen diw mais il faut que kii wax ne seen diw nee na kooku nekk woon maanaam loolu tamit charte la ah ah. ah voilà seen diw moom foog mu wóor mhm. waaw maanaam mais jëmmi li ñu bëggoon a wax mooy ginnaaw ba seen diw ku wóor ba pare ba nga xamante ne moom nangu nañ ak kóoluteem gannaaw loolu il faut que tamit ka wax ne moom moo wax kooku foog mu wóor mhm. voilà. Mhm. moom mi ngi génn àdduna kon 64e année génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an al-A'raj muy Abdurrahman ibn Hurmuz ibn Kaysan al-A'raj muy Abu Dawud muy dàqantalam al-Madani rahimahullahu ta'ala dañ koy wax Abu Muhammad ak Abu Hazim ñu koy wax al-A'raj maanaam ngir ne dafa dafa laajte woon maanaam moo tax ñu koy wax al-A'raj mu gën a mu siiwee noonu. ah rahimahullahu taala waaye mu nekk koo xamante ne maanaam ku ku màgg la comme ni ñu koy gisee ba nga xamante ne càll moom lu mu soloo ci Seydina Abu Hurayra ñu jàpp ne radiyallahu anhu ñu jàpp ne moom xëy na gën a dëgër ci li ñu soloo ci xadis maanaam lool tamit day wane ni nga xamante ne noonu la màggee mu génn àdduna tamit cent dix-septième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu Ali ibn al-Madini boole ko ci juróom ci ñetti ci juróom benn bokk yi nga xam ne taalibe Abu Hurayra yu màgg yi radiyallahu anhu maanaam taalibe yu gën a màgg ci juróom benn yooyu mu boole ko ci te fi mu ko dugal mooy ñoom Sa'id ibn Musayyib ñoom Abu Salih mhm. euh, as-Samman ñoom Muhammad ibn Sirin ñoom Tawus ibn Kaysan mhm. euh, Hammam ibn Munabbih te loolu moom yooyu ñooñu moom maanaam nga kon fi mu ko dugal ak Abu Salama ah ibn Abdurrahman ibn Awf nga gis ci ñu ko boole maanaam ñooñu ñëpp ñoom ay imam lañ ñu màgg lañ euh, rahimahullahu Euh, taala rahmatan wasi'a moom mi ngi génn àdduna kon cent dix-septième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñetteelu tabaqa bi euh, ci ñetteelu génération bi hadiisam nekk ci kutubu sitta an abi hurayra radiyallahu taala anhu sahaaba Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu Abdurrahman euh, ibn Sakhr ad-Dawsi radiyallahu taala anhu nekk ci ëpp li mu solo hadiis ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg ci maanaam ñëw dugg ci lislaam ànd ak Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ci juróom-ñaareelu at ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jamonoy xare xare Xaybar euh, ginnaaw ga tamit mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul rek lu mu lu mën a lekk wala mu gi ñi ñeneen ñi li ñu nekk lépp ku nekk bu demee doxi soxlaam mu ñëwee dem dem fay ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem jàngi bi ba pare yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal ko bu mu fàtte mu mu mu nekk kon ki nga xamante ne dafa mokkal ba pare mu soloo ci xadis yenente bi sallallahu alayhi ay xadis yoo xamante ne moom rek moo ko soloo radiyallahu anhu kon mu nekk tamit koo xamante ne euh, euh, euh, ba pare mu nekk ki nga xamante ne tamit xadis yi yi maanaam maanaam ñi nga xamante ne mooy xadisu musalsal bil xuffaz yeexee ci moom maanaam ngir ne moom ilay intahar riyaasatu fil maanaam li nga xam ne mooy ak mokkal moom mhm. ak mën nettali xadis jàpp ko ci moom la daje moo tax ñu naan ko bëri nga loo mu ne ah mhm. waaw bëri nga li ngay toxalul ak sarta ak sarta mu ne man waxuma leen lépp sax li ma mokkal ci yonent bi sallallahu ñaari ndab la mhm. hafistu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wi'a ay maanaam ñaari ndabu xam-xam laa mokkal voilà voilà amma amal weexal awal faqat basastuhu lakum maanaam daal ndab lu njëkk moom lépp moom maa ngi leen koy yullil nii waaye beneen ndab law basastu fii law basastu lakum minhu shay'an laqata'tu hadha al-qalam beneen bi moom su ma ci amoon lenn lu mu ci génne rek moom ngeen dagg baat bi waaw loolu mooy wane tamit maanaam lu bëree bëri li moom xamee ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon na ko benn maanaam tandar mom dugul ko ci benn gafa gu gumu yoron maanaam doon ko wekko waye da nañ jël rek di lek ay ati ati at yonent bi sallallahu alaihi wasallam làkk na ay at mom day jël day dugal loxom rek lek su xiifee day dugal loxom rek rek wa ah. dégg hmm. euh mom kon radiyallahu taala anhu mi ngi génn eh, eh, àdduna cinquante neuf ans ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alaihi wasallam te loolu mom moko ñaanal moo ñaanoon yàlla mu bañ fekkee juróom-benneelu fukki at bi voilà ak euh, ak euh, imaratu subyan maanaam comme ni mu ko waxee voilà maanaam ji voilà euh, mooy sittina rasu sittina mooy bokk ci ñuy dund ba juróom-benneelu fukkeelu at bi ci njaalbeen bi ak i maanaam njiitu ñi nga xamante ne ñoom ñooy gone yi te mooy ci la bi ibn Muawiya ñëw nekk jël eh, eh, imaama gi maanaam jël nekk xalifa jullit ñi maanaam def di def lu ko neex maanaam kon nga gis ne loolu itam dafa bokk ci li nga xamante ne xamoon na ko radiyallahu taala anhu moom mu ne eh, anna rasulullah nag maanaam moom seydna abu hurayra radiyallahu taala anhu tamit mu solo xadis mooy cinq mille trois cent soixante-quatorze xadis la yoo xamante imam al imam muslim ci trois cent vingt-six xadis yoo xam ne imam al-bukhari wéetu quatre-vingt-treize xadis imam muslim wéetu ci 98 hadis imaamu Ahmad rahimahullahu taala maanaam rek moom ci musnadam euh, solo na ci Seydina Abu Hurayra 3870 hadis radiyallahu taala an anna rasulullah naka ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na koor junnatun ak pàkk la maanaam koor dafay dafay fànk ay hmm. ay ay ay musiba maanaam day day aare hmm. kon bu daal di gis benn ci ngëneelu koor mooy lan da aar maanaam day aar ci yaramu nit day aar wér gu ci bi maanaam wér gu yaramu nit naka noonu day aar itam li nga xamante ne moom mooy nit ki ci ay euh, ngën ci ay doxalinam ci ci pas-pasam day aar nit ci ay mbonte comme li nga xamante ne nit ki su wooree yu bëree bëri dina xam ne du ko war a def moo tax mu ne falaa yar fu bu mu def maanaam lépp loo xamante ne day indi njaaloo wala yajhal te bu mu tooñ maanaam bu mu tooñ bu mm. mu def loo xamante ne ak tooñ la mm. wa inimru'un bu fekkente ne am na benn waay benn cam xaatalahoo buy xeex ak moom aw wala boog saatamahoo bu koy ŋàññe maanaam di bëgg a euh, di xasanteeg moom fal yaqul na ko wax rek inni sa'im inni sa'im inni sa'imun man de damaa woor mu wax ko mara tey ni ñaari yoon waaw lool tamit mu nekkaat beneen ngëneel bu mu am mooy ne day tax kon ba ay wax yu sew doo dugg naka doon jëf yu sew doo dugg wala waat naa ci ki nga xamante ne a sa bakkan bi yadi mi ngi ci loxoom la xuluufu giñ naa ne eh, xet maanaam soppeeku xet bi nga xam ne moo nekk ci famille saa'im eh, famille gémminu as-saa'im aji moo gën a teey maanaam moo gën a neex indallah fa bur yàlla taala aji kawe min riihil misk ci xetu misk ndax misk muy gëtt borom bi subhaanahu wa taala daf koo sopp eh, moo tax yonent bi sallallaahu alayhi daal gëtt saa waaye mu ne nag xetu gémmin gi nga xamante ne mooy ndax nit ki dafa woor soppeeku boobu di am ci gémmiñ gi xet googu moo ko gënal moo gënal yàlla misk te loolu tamit day wane ngëneel gi nga xamante ne moom moo nekk ci koor euh, mu ne ndax lan mu ne nit ki yetturu ko dafa bàyyi taxaamahu lekkam wa sharaabahu ak naanam wa shahwatahu ak ba bànneexu bakkanam min ajli ngir man ngir ngir yàlla mm-hmm. kon loolu tamit mooy def ngir yàlla dafa am solo te koor day dimbali nit ci mu def ngir yàlla ngir ne koor moom dafa nekk loo xamante ne nit ki mënu koo def ba pare di eh, di làqatu te du ci sincère mënta ne parce que su dee loolu la saa yoo wéetee rek génn ci koor bi mu ne asiyaamu koor nag lii ñeel na ma loolu tamit mu nekk beneen ngëneel mooy le fait que borom bi subhaanahu koor man maa ko moom waaw eh, wa ana te man ajzi maay fay bi ci moom maanaam mooy du wax malaaka yi ne ko euh, comme kii woor na na am tiyaaba sàngam loolu moom du wax malaaka yi ndax malaaka yi mënuñoo quantifier koor ngëneel gi ci ne moo tax yàlla ne man maa koy fayal sax maanaam euh, voilà loolu li ci aju dafa màgg tiyaaba bu nekk nag biashare ci fukk am saalihaat te mam la maanaam nit ki bu defee jëf ju baax bu ne maanaam fukk yu mel noonu laa koy fay waaye bu dee koor Mhm. kor loolu manam duggul ci baremu bob ci baremu bo defé ben ñu fay la fukk kor duggul ci barem bob mhm. kon loolu mom motax mu koy hadith bi imam al-Bukhari rahmalahu taala dina ko indiwaat xadis numéro mille neuf cent quatre cinq mille neuf set imam Muslim indi na yoon Abu Dawud na ko numéro deux mille Tirmidhi na numéro Euh, imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro deux mille deux cent quatorze ba deux mille deux cent dix neuf ak deux mille deux cent vingt huit ak deux mille deux cent vingt neuf imam Ibn Maaja indi na ko xadis mille six cent trente mille six cent quatre vingt onze ak trois mille huit cent vingt trois imam Malik bi ñu soloo ci ko xadis bi indi na ko bi euh, ñu gis ne waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñëpp